fi nekk nii tiital nga ñëpp ñu ne dafa dëgër bopp mais yow gënoo dëgër bopp boo dëgëree bopp gënoo dëgër bopp Sénégal yi yow benn Macky Sall Sénégal yi ni ñu toll Touba Tivaouane Ndiassane Laayeen Ñaseen Canaba fépp yow nga ne yaa leen ëpp doole biñ fi waxee affaire sàmm jikko yi affaire criminel affaire góor jigéen mais da ngaa lànk man nag dama xamul ñun ñii woyoo nitu diine ñu ne ñun diine ji dañ koo séddoo ñoo ko moom. wallahi jooy nañu suñu bàyyi suñu kilifa xam nga ne am na ñaar ñoo xam ne bu ñu fi nekkoon ak ñeneen ñi seen xam ne ñoo nekkoon ak ñoom muy bàyyi laat maam Abdoulaye si Dabaax billaahi li ngay def nii doo ko def parce que duñ seetaan mais boo xam ne Macky Sall dafa dëgër bopp waaye dëgër bopp 18 millions yow kenn nit nga ne dag leen ëpp doole boo màttee doo bàyyi buñ la ñaanee doo nangu waaw ñun nit yi nii ñun damaa bëgg a laaj ñun ana ban cër la ñu Macky Sall jox ak ñun ban cër lañ am. donte kon diine l'islam bi ñun ñu wax ne ñun ñoo ko moom ba ñu woowee ñu nitu diina ana ban cër lañ am ci diina ji ak ban baat ak ban doole lu xew ci réew mi ci ñun du ñëpp nag am na ñu baax lii may wax boolewuma ko ñëpp am na ñu baax ñu maandu ñoo xam ne fañ nekk ci seen i der ak seen kurus bokkuñ ci dara lu dul jaamu yàlla waaye nag li ëpp ci diina ji li ci ëpp ñëpp ñëpp dañoo noppi di seetaan lu yàqu ci réew mi ñun ñii ñoo ko yàq parce que ñoo seetaan ñoo war a wax te waxuñu lu ñu wax ci diine ji ci lu bon it ñun gis nañ suñu taalibe yi wax lu bon lu gën a bon loolu te waxuñ ca xam ngeen di li wax yéen ñëpp dégg ngeen ko lépp lu ñuy wax ci diine ji ñun ñoo ko seetaan benn Macky Sall mën na nekk fii nekk président de la République di def lu ko neex jàpp junney doomu aadama ak quelque di picc koor ga balaa ñuy woor ba si njooni tey jii ñëpp nekk ci kaso yi te moom mun a wax lu mu leen téye ñun ñu nopp di leen seetaan diine lislaam bu doon jëmm tey dina jooy wala mu kalaame. mooy li xew suñ mbokki Palestine yële waaye ñoom nag lu mu bon bon dañu àndante Sénégal yi maa ngi leen di ñaan Sénégal yi ñu bëggante te ànd nekk benn bopp gis nga bu fekkee dañu bëgg réew mi jaar yoon kenn ku ne fa nga nekk nga ne danaa fexe ba nekk président wala danaa doon dara di dox ci intérêt nanguwu ñoo ànd nekk benn bopp nanguwu ñoo ànd nekk juboo xanaa ku ne di war sa moroom ku ne di trahir sa moroom li gën a garaaw ci réew mi mooy wor li gën a garaaw ci réew mi mooy tappale yàqal sa morom nekk ci benn parti ñu wóolu la nga rocceeku ndànk lañ fay wax lépp nga di ko sennal di yàqal ñooñu yaakaar ni di nga jekk <laughs> doo jekk billaahi doo jekk képp ko koy def ku nekk jàppal ne yaa ngi lekk sa bopp ànd ak ay nit ñuy ay gor ñu wóolu la ba jox la cër ca lañ la wóoloo sédd la cëb cër yow soo waxee jël ba dem nag ñoom waxtaan ba pare nga rocceeku jël lépp dem génn ko ci biti pour daaneel leen pour yàqal leen pour war leen te loolu moo am ci réew mi Ousmane Sonko sax li ko yóbbu ci kaso bi loolu la bokk wante te dinaa leen wax benn mbir monsieur le président de la république Sonko mooy nit koo xam ne man sama tànk demagul këram Ousmane Sonko ñëwagul sama kër man yàllaa tax may wax man par parlowuma kenn waaye nag man dëgg yàlla gi laa ànd ulaayka xisbullah allah ay ni xisbullah humul muflihun man ci kuréelu yàlla laa ànd dëgg nag ba jotee dama koy wax Ousmane Sonko lii nga ko def jaaduwul tegoo ko ci yoon da nga tooñ ba tooñar bi ko tooñ yàlla tooñ rasulullahi tooñ maam alaaji malik tooñ maam Serigne Touba tooñ maam Cheikh al Islam tooñ kilifa nii yépp ndax li tax ma wax loolu mooy ñoom dañoo nekkoon nit yàlla bëgguñu woon ku tooñ bëgguñu woon fekkee kuy tooñ kon boo tooñee kenn ci seen sët ci waa réew mi rek tooñ nga ñëpp te it nag yow waxal Sénégal yi lu la Ousmane Sonko def parce que nit kay soo koy tëj kaso di ko tuumaal di ko accusé dem ba ñu yónni ay nit ñu toj oto di ko buqi di ko gaañ ba fi mu ne nii mu nga ca kaso ba te kenn mënul wax lu tax da ngaa war a wax Sénégal yi ne leen Ousmane Sonko nag maa ko tëj kaso lii moo tax ma tëj ko kaso lii mais ba léegi waxuloo ko lenn la rek mooy population bi ànd nañu moom góor jigéen mag ak ndaw ñëpp ñëpp kàdduum lañu ñu wóolu ak yaram ak tegiinam nga xam ne tey élection ëllëg mën na ko jël te su ko jëlee li nga yaakaar ne moo am sax amul Ousmane dëgg la dina seet li fi xew waaye ni nga yaakaaree ne noonu lay dalee ci sa kaw demeewul noonu te yow loolu nga ragal bu Ousmane Sonko gañee rek jàpp ma toroxal ma lii rek a tax nga téye Ousmane Sonko may du lenn te it nag yow yow dañ laa fal yow tribunal la fal loi moo la fal mboolem bi nga toogee ak léegi saa yu ñu amee procès moo xam opposition bi moo xam individu yi ku ci yóbbu dossier bu jëm concernant pour ci jëm ci yow ñu àtteel la jox la dëgg. su dee koo xam ne nii dañoo dégg dafa wax ci téléphone wala mu wax ci lan ñu ne dañoo appel instruction la def ñu yóbbu ko central enquête ko yóbbu diig juge bi dépp ko mandat dépôt li ñu def mandat dépôt ëpp na junne doomu aadama est-ce que lii dana doxal réew est-ce que yow nii ngay yoree réew est-ce que yow lii lañ la lebal yow soo mosee nguur tey tey yow Macky Sall boo mosee nguur tey billaahi Sénégal yi ñoo tax nga mos nguur yow Macky Sall kese ngoon woon dëkk ca Fatick dëkk derkele gii fexe ba jokkoo ak ab Wade Ablaye Wade defu la lii yow Ablaye Wade bu la defoon lii ngee def Ousmane Sonko yow doo nekk président de la république te yéen ñi nga xam ne yéen nekk tribunal waay waaye ngel la maa ngi delluwaat di leen wax rus leen bàmmeelu ñetti fan billaahi dee ngi ñëw ci ñëpp moo xam altine la wala talaata wala àllarba billaahi dee ngi ñëw ci ñëpp ana waxtu yu daaw ñu fi nekkoon konte leen lu bari dem na te ñu dañuy dem ñu ci yoon wi waa ji dee leen seet seen diggante ak seen borom waa ji moytu leen poche li maam borom tubaa ragaloon mooy alal xaalis mosu ko laal bant bu gudd la ko daan laalee tey nag ñun ñu ne ñooy ab sëtam wala maam alaaji Malick nga xam ne tey dafa maandoxoon a maandoo maandoo ba soow di gën a lu ku bëggoon soow la benn bis ñu indi ko soow taajal ko ko mu di ko romb rek dem mel ni ku ko fàtte ñu ne ko góor gi soow mi xalaat dafa ne soow mi ngeen ma indil kan moo ma mën a leeral na nag wañ ko ratee lekkut alalu jàmbur ngir maandu te ñooñu nañ meloon ak seen jamono ak li xew léegi mu ngi mel ni yàlla ak yàlli fii li fi nekk léegi mooy ñun sëriñ ci alal dong la ñu gëm alal dong la ñu topp ba pare di par parloo nag ànd ak Macky Sall mii ngir alal Macky Sall bu wàccoon tey daanu rek ñu fàtte ko kii falu rek ñu ne ko yow la bu dee xale la man xaw ma kuy falu du ma wax waxi ëllëg waaye ku mën a falu ñu ne ko yow la yàlla waxoon na ko gisoon nañ ko ci xale gi ñaanal nañ la ñun nit yi nii ñooy waxtaan tey de xëy na du ñëpp nag waaye dama cee wax ñu bari gis ngeen kaamil alquran yi ñuy wàccelu mokkee yàlla la yow mënoo ne léegi da ngay lekk riba mënoo ne léegi da ngay bokkaaleeg sa borom yow di wax nit ñi di leen dikk aljana joo xam ne xamoo aljana fa mu nekk yonent bi nga xam ne moo gën ñëpp moom ci boppam sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam demagul aljana mu ngi barsàq di xaar wax nañ ko waxati ko yàlla wax ci alquran li kulli imri ñu ne ah naka kenn képp ci yéen bés penc muy àllaaxira sa nun di nga am mbir moo xam ne yux nii yi dalay doy parce que kenn ku nekk ëllëg sa diggante sa borom ngay def siiw mu leer waxuma laa nga ne da ngay tal keneen mënta nekk yow ma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an bakkan mënul moroom bakkanam dara man waxuma ko de alquran la yow ma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal yow yawma isin lillah waaye léegi fi mu nekk nii tey da ngay kaalawu naan ñu ñun dañuy fal dañuy folli gis naa sax benn waaye bu ko def ci vidéo naan ñun dañuy fal dañuy folli quli allahumma malikal mulki tuuti mulka man tasaa ku ni jàng na ko ci alquran baatab yàlla boobu yow sëriñ bi nga taxaw di ko weddi naan dañuy fal dañuy folli inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dara yàqut ñu lu bokkaale gu ëpp gi ak itam ñun nitu diine yi guddeeg ba ca subaangoon ñu ngi xuloo ci suñ biir ebaadu dégg nga sunnit yoo xam ne ni kenn xamul lan la donte kon kenn ci ñun dafa juum sax war nañoo ma def daje dajee réunion dem këram waxtaan ak moom yedd ko waaye ku nekk toog ci sa internet di saaga di wax lu bon te ñunu neen kese waxta si waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqoo yàlla wax loolu ñëpp di ko dégg waaye fi mu ne nii déedéet kii ebaadu la mu murit kii nangam la gëmut tijaan kii wax na ci tariqa bi kii wax na ca naa tariqa man kontuuruma tariqa déedéet tariqa lu baax la waaye nag al yawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan yàlla ne yonente bi al yawma akmaltu lakum diinukum keroog la ko ne lépp mat na dara wàccatul dara ñëwatul gannaaw yonente bi la tariqa am bon lu ci jar xuloo yàlla ne matal naa lépp matal naa lépp tey lépp lépp lépp te dugalutoon tariqa jamono boobu man kontuuruma tariqa ci laa juddu te gëm naa tariqa itam waaye nag ñun dañuy dem ba dugal ci lu ci bokkut di ci tëgg di def ay manjar dégg nga di def yoo xam ne nii wax dëgg yàlla bokku ci ba pare nag lépp lu la jox ci alal nga jël buur ñu ñëwee indi la malet nga jël nga ne nag da ngay wàcc ay kaameel di ñaan yàlla du la faale ci ñun jàng ñaar fukki junni millions yi kaameel du jëriñ dara gis ngeen ñun jàng nañu xam nañu duñ ay dof kër yi diine yi ci lañ bokk ñenn ñi suñuy nijaay lañ ñenn ñi suñuy maam lañ ba ba ngay dem ba sookoon ba ba ngay ñëw ñaseen ba foo mën a dem maa ngi yéen ñun ñoo bokk benn deret bi xasuñu kenn mais nañ bàyyi naxaate yi Sénégal li ñu dal lépp lépp ci ñun la benn Macky Sall mën nañu ëpp doole ñun ñëpp quatre-vingt-quinze pour cent musulman te amuñ baat Macky Sall am 65 pour cent kese di dogal di dog di yeew di yewi di dóor di jàpp ana léegi nit ñi ci kaso bi Cheikh Omar Diagne professeur Cheikh Omar Diagne Falilou Keita Ami Dia Abdou euh, euh, euh, kii xurun xan boobu ak ñeneen ñu bare bare Mamadou Gueye ñoom ñëpp ci kaso bi junne yi nit ak lu topp waaye waaye ñun nitu diine yi ana ñun si njariñ ci diine ji lan la